mbir mi nag li ko sookee yéen ñëpp xam ngeen ko temps yi yéen a ngi dégg ci rajo yi am Ousmane Sonko jàppal Ousmane Sonko bàyyil Ousmane Sonko ñu ci bari sax nee nañ dem nañ ba ne ñoom Ousmane Sonko dañ koy tëj dégg ngeen fi ay avocat ñu ne ñoom balaa ñoo leen gën balaa ñoo gën a bëgg rek ñu gis Ousmane Sonko ñu tëj ko ci kaso loolu nag moo waral ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ci Pastef woote bii ndaje waxtaan ak askan wi pour leeral leen li nga xam ne moom moo am.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 dégg nañ fi ay avocat ñu ne Ousmane Sonko dafa soxla commission de 12 pour cent moo mbir mi mu koy wax si ñu ci lay question bu bi li nga Ousmane Sonko def depuis ñaari at dafa porter plainte kii nga xam Mamour Diallo directeur des domaines ndax dafa jalgati yoon loolu moo waral ñu ñun tentative de liquidation politique parce que ñoom xam nañ benn mbir Moi, en 2024, Ousmane Sonko kenn mënu koo tere nekk candidat bu soobee candidat lay doon à l'élection présidentielle, présidentielle te ñoom ñii nekk APR amuñu ben candidat boo xam ne tey mun naa taxaw ne day jàkkaarloo Ousmane Sonko Ousmane Sonko su ko neexul mu continue ci loolu te defu ko. un inspecteur des impôts de domaines qui a travaillé pendant 15 ans il a dit à l'État. état su ngeen 50 francs boo xam ne man maa ko jalgati ñëw leen ngeen jàpp ma man maay constitué en vie prison

je prends en témoin Mariam Badian, la responsable des femmes au niveau de la paire Mon est en licence Nous ne étudier on ne peut pas tuer le fils d'emprunt au profit du fils biologique Madame, sa doomu jiit la mënoo koo rey ba parce que sa doom bi nga que nga bëgg mu madame li nga la wundu mu ne ma boo ko bëggee xam nga ñëw sama bureau ma dem ci bureau mu ne Macky Sall mii Abdoulaye Wade da koo bëgg a jàpp ba pare may yoon Karim Wade te loolu ñun duñ ko nangu parce que Macky Sall bi man maa ko jàngal bi mu nekk IST ils étaient quatre étudiants ma ne ko ah, mu ne ah ñu ne ko ma ne ko kon de xeex boobu dugg nañ ci jour boobu lañ dugg ci xeex bi pour la défense des institutions ba 23 juin mu jural lu ñu jural kon tey du ñu wëlbatikuwaat Macky Sall moom ci boppam bëgg a jël aussi un frère patriote rey pour le profit de ses frères apéristes c'est le projet c'est l'institution en tant que telle qui nous intéresse donc nous ngi leen di